une opposition euh, de toute façon la nouvelle opposition. ah il faut qu'il y ait une opposition on dit qu'aujourd'hui Amadou Ba. mais nee nañu waa APR ñoo waroon nekk la nouvelle opposition. non mais on dit que peut chef de l'opposition. mais mais mais tey jii kenn gisatu leen ngeen déggatu leen. waaw mais xam xëy na ñu ngi préparé wu. yow moom bokkoo ci. man teg maa bàyyi. <laughs> dama <laughs> la bàyyi parce que yow yaay sama gan tey <laughs> yow moom opposition boobu nee nga bokkoo ci da ngay nar a taxaw euh, def sa yoon l'histoire nous édifiera oui l'histoire nous édifiera euh, comme ni nga ko waxee mais def nañu tam yeneen jéego ci wàllu mbay mi gis nañu augmenté nañu budget bi à 120 milliards premier ministre Ousmane ko wax ne par exemple dañuy euh, jéem a assainir parce que ay luubal tam da doon am ci engrais yeeg semence yi waaw moo a dem moo tax moo tax tey moo tax tey ma rafetlu la décision de la très décision mooy nañu confier mbir yi à l'armée nationale sécurisation force euh, de défense bien vrai que force de défense aussi ay sénégalais la ñu ah waaw waaw mais lii civil sañ a def mm-hmm. ah homme de tenue sañu ko def dëgg la donc euh, loolu aussi nañ si bàyyi xel donc di rafetlu euh, décision boobu mm-hmm. mais li am solo aussi mooy priorité bi nga xam ne jox nañ ko agriculture parce que tey bul fàtte ni. Mm-hmm. Euh, au Sénégal dans la majorité bi on consomme des produits yi nga xam ne ni du fii lañ ko bayee dañuy consommer ay produits ñu war a importer tey mooy la question du foncier surtout au niveau rural. Mm-hmm. ñu gérer ko ba nga xam ne ñu jël affaire bi delloo ko les vrais paysans ñu dem vers ce qu'on la promotion du consommé local ça c'est local. waaw de yaa ngi mel ni ñoom Ousmane Sonko. maa ngi mel ni Diomaye. waaw yaa ngi mel ni Diomaye c'est normal. ñoom ngay kii daal. donc jàppale. la promotion du consommé local. pour bañ a génn encore si sujet boobu. <laughs> dafa am solo parce que il faut consommer ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Mm. le président Bassirou Diomaye li mu wax un développement endogène moo tax may rafetlu l'implication du secteur privé. oui audience bi mu leen dalal. li mu njëkk a def mooy recevoir le secteur privé. parce que le secteur privé tey moo war a nekk le fer de lance de notre croissance. Mhm. économique. le secteur privé moo war a nekk le fer de lance de notre développement économique man li ma gëm mooy une croissance inclusive et participative. inclusive ñëpp si bokk participative ñëpp si bokk waaye ñëpp a war a ressentir également la redistribution des fruits de la croissance tey on parle d'emploi des jeunes mais l'emploi des jeunes mais c'est une question transversale l'État n'a pas vocation pour créer des emplois mm -hmm. mais l'État va créer les conditions. pour faciliter l'insertion économique socio-économique des jeunes te loolu ça doit être porté par le secteur privé national ma jàngat encore la situation refetlu encore la démarche du président Bassirou Diomaye Faye nous avons connu ce qu'on appelle la pandémie Covid-19 nous avons subi les conséquences de la crise ukrainienne tey jii préparons-nous à subir également les conséquences de la crise Israël palestinienne et moo tax ma wax ni Bassirou Diom le président Bassirou Diomaye Faye à compris mm. pour dire que tey il faut mu am un dispositif bu ñuy teg pour baisser pour diminuer la vulnérabilité du Sénégal face au choc exogène mais surtout maanaam lépp lu xew bitim réew mu bañ a impacté à un certain niveau à un certain kon loolu bu amee mais mu ne nañu promouvoir le consommé local la promotion du consommé local te loolu yëpp ça doit être un pari du secteur privé national mm. sécurité alimentaire sécurité alimentaire parce que bu ma waxee Euh, souveraineté économique. Euh, euh, wax voilà ça englobe tout loolu mooy et la souveraineté économique c'est le pari est porté par le vraiment le par le secteur privé mm. national moo tax mu war a impliquer le secteur privé par rapport aux grands projets de l'État les grands projets de l'État dans tous les secteurs tels que l'agriculture parce que agriculture tey avec la question de l'emploi des jeunes boo jëlee l'agriculture avec les sous-secteurs entre guillemets mooy pêche élevage et cetera mais c'est des niches d'emploi oui yu bëree bëri c'est des niches d'emploi moo tax tey nañu sensibiliser gis nga la question de l'emploi des jeunes wax naa ni est transversal état am na un rôle à jouer mm-hmm. le secteur privé a un rôle à jouer mm-hmm. la société civile a un rôle à jouer pour sensibiliser des jeunes, aller vers les jeunes, discuter avec les jeunes, pour que ces jeunes deviennent plus patriotes. Le patriotisme, rester chez eux, toog xaar. bu boobaa nag bu ñu waxee ñoom bu ñu toog xaar ba a def l'immigration clandestine nañu fexe ba def ay investissement dans le monde rural où 70 pour cent de notre population est dans le monde rural. Mm-hmm. tey lu tax marchand ambulant yi bëri fii l'occupation illégale et anarchique de la voie publique mm. j'étais le directeur général de l'ANAMA ah, on avait un, début de solution mais malheureusement l'agence a été dissoute moo tax ma ne la tu peux être dans un système mais tu n'as pas la décision c'est pas toi de décider okay. mais tey buñ ma laajoon sama avis et bindoon naa ko joxe naa ko mais on avait travaillé parce que les marchands ambulants 91 pour cent sont des jeunes mm. te Fatou gis nga euh, notre tissu économique mmh. est porté à hauteur de quatre-vingt-dix-sept pour cent par le secteur informel, informel. Ouais. on dit secteur informel on dit économie populaire oui. maintenant ce secteur informel là quatre-vingt-onze pour cent ce des jeunes et leur activité le commerce le commerce qui occupe aujourd'hui de quarante-cinq pour cent dans le secteur informel mais tey ils occupent la voie la voie publique de façon illégale et anarchique donc nous on avait travaillé pour la reconversion de ces jeunes marchands ambulants vers d'autres secteurs porteurs tels que l'agriculture dans le monde rural retour en zone d'accord yooyu yëpp liggéey woon nañ ko anama ci loolu loolu lañ nekkoon fexe ba tabaxaat ay complexes commerciaux ñu recaser les marchands ambulants c'était un très bel projet mais l'autorité a été très mal conseillée ñu ne on va vers ce qu'on appelle la rationalisation oui, on plus de cohérence dans la gouvernance de l'emploi mmh. parce que tam ñu jël ñu boole ko ci oui mais emploi tamit nañ nangu ne dafa dispersé woon les waaw moom laa lay wax ni c'est-à-dire que tey fii lale fële non bul fàtte ah. bul fàtte ni moi ba ñu defee loolu ñu dissoudre quatre structures j'étais le secretaire général de l'ANPEJ pendant six ans mm. donc la question de l'emploi des jeunes. man xam naa si lu bare bare bare bare bare. mais lan moo tax gouvernants yi fi jaar yëpp am problème mu résoudre ko. la question de l'emploi des jeunes se pose à tous les gouvernements du monde. et posera se posera. oui oui je dis se mais de chômage bi quand même. déggoo lu ma la dama ne c'est posé la question de l'emploi va se poser maintenant comment. qu'est-ce qu'il faut faire il faut poser des actes ay actions yu intelligentes et durables pour rassurer la jeunesse te loolu l'agriculture si la bokk l'industrialisation si la bokk et cetera moo tax tey l'approche du président dès le début de son mandat mooy discuter avec le secteur privé mmh. mais dinaa ko wax encore mu woo la société civile wax ak société civile bi waxtaan avec la jeunesse di def ay spot publicitaire vraiment ñu sensibiliser les jeunes l'immigration parce que ñàkk yaakaar moo tax ñu dugg ci géej gi mais est-ce que fi ñuy dem est-ce que foofu moo tane Sénégal <laughs> ñun dañuy voyager ah point d'interrogation ñoom di dugg gaal bi bëgg a dem à l'Europe jàpp ne foofu c'est l'Eldorado est-ce que foofu moo gën Sénégal Sénégal dafa neex de hmm. ah oui mais mënoo ko xam tànk génnoo moo tax diaspora bi bëgg nañu ñibbisi mais nañ leen faciliter loolu ñu ñibbisi mais kuy ñibbisi am nga foofu da nga bëgg a dëkk waay. mais moo tax la cas la question du foncier nañ ko nañ ko xoolaat. mais.